ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf ku bëgg a gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf xoolal suñu baay sëriñ Abdul Qadir Mbakke xoolal suñu baay sëriñ Abdul Qadir Mbakke yamshi kal malak nee na bu daan dox dafay mel ne malaaka muy dox يمشي مستحضرا عظمة الله في كل مراحل في كل أوقاته. nee na waxtu wu nekk bu daan dox mi ngi teewlu màggug yàlla.